li nekkoon solo waxtaan wi nekkul lu gudd lu gàtt lay doon li ñu dajale fii nag ñun taalibe sëriñ Touba yi dafa am lu xew loo xam ne mel na ne képp kuy ab jullit engagé na la rawatina ñun ñi nga xam ne amuñu lu dul Serigne Touba ñun nag sëriñ Touba rek la na am lu dul Serigne Touba amuñu sa soxla. kenn ku ci ne lu la neex laalal suñu yoon néewu sa waaye nag suñ tubaa mooy suñu constitution kooku ñuy wax Cheikh Omar Diagne ñëpp dégg nañ ko wax ji nga xam ne saa yu ne mi ngi koy wax ci kilifa diine yi tey nag mel na ne dafa laal laalaale dafa laal sëriñ bi ñun nag ñi ngi àndandoo ñun taalibi sëriñ tubaa yëpp. di naqarlu wax ji di naqarlu jëf ji danañ ko jéebaane nag ba yëpp ba ñëpp dégguñu ndax yonent bi sallallahu alayhi moo waxoon ne man raa minkum munkaran falyaqiru bi yadihi fa bi lisaani fa bi mbir bu xewee nan ko naqarlu na nga ko dindi sa sa loxo saa yoo demee ba mënoo ko dindi sa loxo na ko jéebaane ba ñëpp yëg ko boo ko jéebaane nag mun faju mënta faju na nga ko naqaru sa xol ñun nag egg naqaru sa xol eggugun foofu léegi nag ñi ngi interpellé ñëpp xam ne wax ji naqar naqar nañ ko lool te danañ dem fi fi mat a dem fépp jébaane ko li ko bokk yi waxee nag di naqar loo xam ne lu mat a naqarlu la ndax ñun ñii de suñu toogee ba ñuy wax Sëñ tubaa loo xam du noona ñu noppi ca dellewuñ njukkal Sëñ Tuubaa ndax sunu maam yi teraanga ju ñu am te ñun teraanga yooyu ci la ñuy dund kon koo xam ne wax nga sëñ Tuubaa dara ñu noppi ci ñoo yem ci noppi ci sax dafa war a laaj leneen ñu bëgg a wax ne sëñ Tuubaa rek ci mbirum di lislaam ji amu ci kenn ku ko ci mën a conteste ndax yàlla dogal na ba lislaam ji kenn ku ko ci mën a wax ko ci loo xam ne naka su dul noonu amu ko li ko yàlla jaraloon ak yonent bi ñu baax ñu bari nañ lool waaye sëñ Tuubaa daa gën ndax li ko yàlla jaral ak yonent bi kenn mësu ko ko yàlla mas a jaral amul lim daj ci lislaam kenn mësu ko daj ci lislaam juróom-ñetti aboy ati gabon yi lan waraloo ko lu dul lislaam rek bëgg lislaam taxaw loolu da ko waral coono yi métti yaay mën mënoon naa def ni ñëpp toog am jàmm waaye nag yàlla ak yonent bi moo ko jaral lu nekk kon gisuñu kenn ku war a compter ci Sëñ ndax bu fekkoon ne dañ ne dafa am koo xam ne dafa sonn ci lislaam taxaw ci taxawaay bu rëy rëy rëy bañ mën koo bañ mën a wax ne kii lislaam ji taxaw na ci taxawaay bu rëy nga xam ne dañ naan kii lan la def ci lislaam ban taxawaay la ci def loolu su fekkoon ne am na ko war a contesté nitu yàlla yi dama jàpp ne ku mel noonu la war a doon koo xam ne day liggéey ci lislaam loo xam ne mën naa am mu dab sëñ Tuubaa ci doxin waaye sëñ Tuubaa kenn mënu koo dab maanaam li ma bëgg a wax mooy bu fekkoon ne am na ko war a contesté mooy daa am koo xam ne lislaam da koy jaral mu taxaw ci lislaam def ci lu leer lu fis ci seen ci àddina ba ñu xam ne lii moo ko def waaye dëgg-dëgg Omar Diagne bu ñu doon laaj kan la ban taxawaay la def ci lislaam lan la mës a defal lislaam kenn du la ko wan mbokkam du la ko wan moom du la ko wan lan la ñuy yabee nag bay bay wax sëñ Tuubaa ndax man Mourtala mii rek Omar Diagne amul dugg ci samay mbir di ca wax wax ma lu toll ni sëñ loolu nag dañoo bëgg mu dakk te dana dakk it nag ndax ñun de murit yi amoon nañ lu doon doxee waaye ñu dugal lañ ci naan eh, série yeeg yu kenn xamut ak note modernisation yooyu lañ ñu dugal ñu nangu waaye ñu ko seqal comme moderné wuñu a ah, boo sàggul noonu fañ lañ nekkoon dañ ca delluwaat te buñ ca delloo sëñ Tuubaa jaral nañu ko sëñ Tuubaa jotuutoo kenn dara sëñ Tuubaa bi muy ñëw ci fii di woote lislaam su doon ab tooñkat ab saagakat kenn du ko topp waaye sëñ Tuubaa léegi la rek ku mel ni Murtalaay Si jébbalu waaye ay wàll yi ñoo daan jébbalu ci moom sëñ Aliou Seck ba mu jébbalu sëñ Tuubaa daf na ko dafa ñëw jébbalu mu ne ko kan la mu ne ko Aliou Seck mu ne ko wàll yu Seck wàllu yu sëñ Aliou ne ko nooy xamee wàllu yi waxu la ko mu ne sa juróom-ñaari cër yi ñoo ne mosu kenn mosu cee mooy yàlla suñ doon tudd ñi nga xam ne ñoo doonoon ay wàllu yu jébul sëñ Tuubaa du jeex sëñ Tuubaa ay wàllu yi ñoo daan jébbalu ci moom léegi la ñëpp yi jébbalu waaye ay wàllu yi ñoo daan jébbalu ci moom kon sëñ Tuubaa du ku ñuy fontoo du ku ñuy tooñ ndax mosta tooñ kenn léegi nag Cheikh Omar Diagne boo ko nattee ba natt ko ba xoolaat Cheikh Omar Diagne kan la doon ci lislaam ak lan la ak lan moo ko mën a may mu am fitu di dal ci sëñ Tuubaa loolu sëñ bi dañ ko na daa day jeex nag waaye nag ñun li ñuy dal ñun tamit dañoo mën a seetaan dara di ko booy boyal ba mu màgg soo yoree sa tool war koo baxaw baxawoo ko woo ko baxawoo ko ba mu booy soo ko di bëggee dindi coono ngay def door koo mën a seetal waaye mbir ma fañ ci waroon na waxee dañ daf ñee dañ ko bàyyi woon mu jàll ba mu waxee rek la ñu waroon dal ci koom bu ko defee nag ñu ngi sant ñu ngi ñaan état bi nga xam ne ñoom ñoo ko fal ah maanaam Omar Diagne Cheikh Omar Diagne de duñ ko wecceeg yoonu man bii rek waruñu koy man man dong dong dong mu doyoo di mii kenn wuruma ma Cheikh Omar Diagne waxuma waxuma la yoonu murit ñun nag ki fi ñi fi nekk ci état bi jàppoon nañ ci sonn nañ lool waaye sëñ Tuubaa lañ caaxaanewul sëñ Tuubaa lañ boolewut ak dara duñ nangu bu wale dara sëñ Tuubaa du tooñ kenn borom xam-xam yi ne ñoom ku wax sëñ Tuubaa ci xam-xam daañ tonteeg yow tontanteeg ci yow ci xam-xam su fekkee ne danga nga indi jeneen jikko dañ lay bàyyi gone yi ñu duma la te du mujj fen su fekkee ne dañoo bëgg réew mi am jàmm nañ ñu bàyyil sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa kum doyul ñun nañu bàyyi doy nañu te def na lu tax daa doy waxuma doy ñu waaye daa doy sëñ Tuubaa daal li wér mooy benn nit du ko weddi te bëgg yàlla ak bi koo gis mu weddi sëñ Tuubaa rek bëggul yàlla bëggul yonent bi day layoo lislaam Cheikh Omar Diagne nag xëy na daa wéradi wala buy wax lu mel nii day xëy na day soppiku daal ndax fit yu ko may loolu daal man jaaxal na ma daal. daa mel na ay coow yu bëree bëri juddoo na ci bu ñu demee ci taawoon gi nga xam na ñoom ñoo bokk ay maam fekk nañ démb ci ubbital bunt bi ñu di ko fa ci wàllu corps diplomatique ñi ngi dégg itam ba Maroc na coow li yegg na fa li ëpp itam ci réew mi rawatina fii ci tubaa nga xam ne fi lañ amee la jotaay bi xool yu baree baree bari ba ci ay rongoñ sax wadd na ci te buñ ci tuddee ku mën na sëñ Kosu Mbàkke di suñu kilifa di doom ci sëñ Muntaxa tudd ci itam sëñ Moussa Lakaram tudd ci itam jotaay bi nga xam ne amal nañ ko démb ci kër sëñ Touba doyoon na sëkk mu matale ne liñ doon naqarlu naqari nañu pas des koy bàyyee ak nit ñi ginnaaw yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi leeral bokk yi ak réew mépp ñu amuñ beneen modèle bu dul Serigne Touba foo xam ne nag ay million ngi nit dañ fa aju jooyal fa seen yaakaar di fa tuur seenu ñaq di fa indi seen addiya di fa bàyyi seen pas-pas loolu kenn du ko foyee te am na yenn kàddu yoo xam ne ci foyee ay pas-pas yu nit ci la jëm leneen la ca des nag muy ay coow yoo xam ne depuis mu avant muy agsi ci pouvoir bi yàgg nañoo dégg mu di ko wax ci sëriñ bi mu di ñu naqari lool waaye fii nag ci Touba genn kàddu képp lañu am muy kàddu fa kàddu xalifa bi bu amee geneen kàddu guñ ci toftal mooy kàddu Cheikh Mahamadul Bachir ñu jox ak kàddoom tax na jamono bu ne musta dañ ci di digle ne nañ koy diglu bu kenn génn ci presse bi mbaa fenn di wax lu ñu war a wax danañ ko wax te ji nag boo gisee jataay bi am dañuy bañ ñu defe ne dañoo tàngamtalu Serigne Touba wala ndax dañ ko war ci ay teraanga yoo xam ne defal nañu ko ndax kenn ku ci na ci ñun toogaay ba nga am ba mu jekk sëriñ bee la ko defal na ngay amee sonné woo ko itam yaa ngi ko amee ci sëriñ Touba kon am na loo xam ne bu ñu ko waxee ci sëriñ Touba ba réew mépp ak communauté communauté islamique bi yëpp di ko naqarlu ñun ñii di ndonoom ku ciy wax ñoo la war a jiitu ca wax ci ku ci wër ta waxit ñun ñoo ci war a wax ku ciy waxit boo ci waxee ba wax ci loo xam ne doy na sëkk yam waaye ñun ko ko waxal ndax bu fekkoon ne dañoo waxoon na ne kenn ku ne dellu cosaanam ñun duñ génn dëkk bii te Serigne tubaa suñu maam la di suñu ndono ñu ñuy ndonoom kon am na loo xam ne duñ nangu ay nit di ko di ko wax ndax kooku ñuy wax Cheikh Omar Diagne ñun duñ ko noonoo ndax ñun duñ noonoo ab mën nañoo wute nag ay xalaat ak moom waaye duñ ko noonoo ndax ñun duñ forcé kenn mu gëm Sëñ Touba ndax Sëñ Touba waxoon naa ko ci njël benn njëlbéenu waxtaan wax ji na ñun ku dul yonent bi sallallahu alayhi wasallam Sëñ Touba suñ modèle ci moom. doy nañu sëkk gànjar doy nañu sëkk wattaay doy nañu sëkk itam euh, ab toogaay bi jekk bu fekkee li ñuy wax ci bis bi itam loolu daanaka ñu baree bare bari dañ koy déggandeem waaye ko xam ni tubaa di fonctionner te xam ni tubaa di doxee xam ne wax dëgg yàlla fuñ dalal di gën teewu leen mën mii yor kàddu gi de gën a néew ci jataay bi fii ma nekk ak sama njaboot maa ngi koy giñ ci Serigne Touba président de la république mën na faa wàcc te ko ko fa fekk du ko xeeb te keneen ku ne itam toogaay booba nga am kon Serigne Touba fu mu dalale gërëm teewu ko sëñ bi bu muñu toon du fi mën a dëkk ku njabootam ndax lenn lu ci ginaaw ginnaaw bu jógee ceen jolof ba toll fii ci Sonatel bi histoire ak taarix yaxal na ay wax yoo xam ne daan na ko fi dégg te teewul mu muñ fi ba tey jii mu nekk deuxième ville de Sénégal jataay bi nag du mën a ñàkk donte bëriwut ñoo xam ne danañu gis ci écran yi ak li ñu gis ci jataay yi waaye ñu bare baree bari fii ci population Touba wax ji tur na seen i rangooñ fees na dell dell dell seen i xol ndax seen pas-pas yoo xam ne moom lañ am moom lañ leen laalal